dafa bari démb bi ma lay woo dafa am lu bëggoon te yaa si mën a gide parce que gis nga paa bi euh, sama papa la mais dafa am lu may gis ci moom am lu may viser si moom parce que dafa am lu ma defal te bëgguma mu mel comprendre li ma bëgg mooy. nga waxtaanal paa bi xamal ne leen ama ndaw dafa am contrat wu làmb cinq millions ba 10 millions bu ko defee ñoom xam naa ne ñu bëgg xaalis lañu léegi nag si biir bu ñu nangoo da leen di xamal ne ama ndaw si weeru koor la ne mais combat bi après korité la combat 500 millions ba dix millions boo ko tegalee paa bi dina xaw a wàcc si man beneen bi mooy maire bi dafa bëgg xaalis est-ce yaa ngi dégg léegi yow nga xamal leen ne contrat bi taxaw na di ngeen nangu wala doo leen nangu ba sa sais que ñoom dinañ nangu bu ñu nangoo nag nga xamal ne leen ne kii dafa war a entrer parce que combat bi après Korité te jour yëpp daf ko war a entraîner te warul woor parce que kuy entraîner. bi après combat wooy waroo woor fu ngeen bàyyi ko muy lekk man lekk gi rek moom si ñoom comprendre ñoom ñu bañ a mer man naa lekk rek ba suur comprendre man loolu rek laa bëgg nga teg je sais bu ma ko jaaree foofu paa bi dina may jàpp waaw mais loolu loolu muy géej parce que yow déjà Forza c'est mon sama xarit la ñoo foowandoo ñoo dëkkandoo la xam nga da koy gëm durant koor gi di la entraîner mais loolu mooy solution bi et puis doomu Bargny la yow ngay doomu Bargny kon li mën a am mooy loolu solution la yaa ngi dégg paa bi kon nga dëgg waajur mu dalee sa kaw nga gaañu boo dalee ci kawam gaañu yaa ngi kon dañ koy expliqué la ko da nga am combat ba nga xam bu ñu la fay cinq mais nag ci biir koor gi da ngay entraîné te entraînement boobu àndul ak woor bu ko defee man je veux l'appeler Forza mu ñëw ñu présenté ko paa bi man ki kii ngay entraîné ci weeru koor gi. bu ko defee paa bi dina ko gëm ni kii kat fay nañ début bi nag ñàkkul su ma demee waxtaan bi moom mën na bañ sax du ko gëm parce que paa bi mosuma gëm surtout man man moom mosuma gëm mais ak maire bi dafa bëgg xaalis mais maire bi dafay nangu bu maire bi nangoo nag mooy paa bi nangu nag bu ko defee bu àndee Forza mu gis Forza xam nga xam ni yaa ngi entraîné mais dafay gën a gëm ni loolu c'est confirmé mais xam nga bas lan moo ma nekk si yow. Euh, sa sa sa sa yow dafa mel ni bi may judd si kër gi dafa mel ni damaa juddoo suuf nga juddoo si kaw. mais damaa yàgg ci kër gi nag damaa bëgg a yàgg ci kër gi nag man ci kër gi laa bokk. loolu defal ma ko. non noonu lay demee noonu lay demee. paa bi loolu lañ loolu laay teg moom ku ma paa bi mer. non du mer paa bi suñu paa la te weeru koor wi nag benn weer la rek ci weer wi après yeneen onze mois yëpp dañu war a mën a jubóo quoi mais. oui onze mois. waaw ça va Hallelujah. ah Ismaïla la. bàyyi ma toog. non non non non fii ngay toog naa leen. moom dama kontaan vraiment quoi. ah mu leen fekkee ni ñun toog xam nga ñu waxtaan. tey li mooy àdduna quoi. wala nekk ay nekk ay ndaw ñu ñëpp. jeune nekkul ne tux wala naan lu bon wala tux lu bon mooy tax nga nekk guerrier. ndax jombul ne les jeunes ñëpp ñu réew jeunesse moo ko yor. rek xam nga ndax. tey jii jeunesse bi mooy dem mag notre président wala mu doon leneen wala mu doonaan leneen ak leneen leneen. parce que ñun ñoo war a porter réew mi jël ko en main xam nga parce que mag ñi ay mag lañ mën a ko te jeunesse moo yor réew parce que dëkk yi fi réussir yëpp si jeunesse bi la parce que mooy si garab da nga koy jubbanti sa tooy tooy ba te ñun ñii ñooy garab yi te instant bi bu ñu taxawee am taxawaay porter réew mi dinañ avancer xam nga parce que mais ñun. ñu toog ne président na def nii président na def na nangam nangam te ñun dugguñu jàppale président parce que ñun waxuma la président mais l'islam lépp dañ si war a jàpp parce que jeunesse moo yor lépp xam nga boo jëlee ay arène unitali ñooñu ay jeunesse lañ ay xale lañu woon xam nga te xoolal xale la woon moo nekk xare badar rey boppam reyante ngir l'islam jeune moo yor l'islam moo mën a porter drapeau l'islam yóbbu l'islam fu nekk parce que ñun l'islam la am la ñu wéyoo kon donc bu la nekkee ay xale ñu dox si lii ñu waxtaan xam nga xool lan wax développement di wax développement développement te ñun suñu bopp tant que esprit ñu développé wu bu avancement mën a am te lii bokkul si développement. li ngay takk nii. il visol la. gis nga gaañ lii nii. loo si gis symbole de l'Afrique boo ci gis symbol dégg naa la dafa am si lu muy signifié baax na mais yow tey lii diine mayu la ko te deuxièmement mooy yow wóoru ko weer wi li ngay def ni yëpp pour weer wi la def ndaxte weeru koor dafa doon loo xam ne ni day tax nga wér parce que yow say mécanique dañuy liggéey di liggéey di liggéey douze mois yàlla ne déet weer benn weer bi nag nan woor boo ko wooree sa mécanique yi dina dinañu noppalaku ñu ñu nga mën a am wér parce que ndax yeneen bi dañu wóor leen ndax ngeen wér ndax am na maladie yoo xam ne ne koor rek moo ko man a faj koor rek ba si nekk boo nekkee jeune am nga tollu sa digg doole yow da bëgg di mooy wala di yàlla mu ne loolu bu lay dal deel woor ndax dina la delloo sa ya si sa xel si suñu borom xam nga loolu mooy l'essentiel bi quoi. en tout cas daal copain yi. li nga fi wax yëpp dëgg la ndax weeru koor moom suñu borom moo ko santaane te yàlla lu mu santaane doomu aarab da ko war a def. ñaanal ñi ko mënul it yàlla dogal leen nag mais li ëpp solo ba ëpp solo mooy yow suñu waay la te ñun lépp lu tàmb ci ñun rek yow yaa ngi war ba tax na daal li ci ëpp solo mooy ñun dañoo am combat buñ ko dee ba pare sama waa ji dafa war a bëre ñu fay ko 5 millions. ah te fekk nag yàlla daa def yow suñu ah te bala ngaa kenn yëg yow yaa ko war a ndax it fu la fekk comme ni nga ko yàlla ci kurus gi yaa ngi ñuy ah, ñu am ci yow yaakaar yàlla nañ ci ñaan yàlla may ñu ci ndam lii daal la bëgg ci yow ah wax dëgg yàlla lii daal la ñu bëgg nga defal ñu ko lii daal lañ la nga wax. man dégg naa si la bu baax dama yow nga ne kan moo lay entraîné. Forza moo koy entraîné. di ma ne Prince nga am na mu ngi noonu. mais kii dafa am combat. mon ami Forza moo koy entraîné. mais même diir léegi Forza moo koy a donc kii doon ànd ak Coins guddee bëccëg. loolu diir boobu loolu mooy diir. mais Coins ak Forza ay doom yu bari ñu la ñu ñoom ñaar ñoom ñaar ñu sax mën nañu ko entraîné mais Forza ah. c'est mon ami dama koy woo mu jàppale ah, ci combat. parce que yow da nga bëgg a teg Forza te leer na ma ne Forza du xam ni mu demee ñooñu ay mbër la ñoo am ful la Forza ak Quench entraîné ñëw tëdd nelaw waxuñu dara si caaxaan dama leen xam te leer na ma ne yéen a ngi wax ay Forza ay Quench leer na ma ne ñooñu sax dañ leen di dañ leen teg di parce que mbër yooyu nekkuñu mbër yu ñàkk fayda ba seen dili yi ñu siy dugg ñooñu. Forza c'est mon ami. oui waaw c'est mon ami tax yow da ngay dem nekk da ngay sama copain day bëre entraîné yooyu noonu. teg say dil. parce que yow xam naa yow sa kanamu dealer nga yow. Oh, yow ku la xool physiquement xool la xam ne dealer nga. yow tu comprends rien mais Forza dinaa ko nax ci ay deal ay combat ay yu affaire yi ñàkk fay na yooyu mais nga teg ko fan. yéen seen problème. mais Pape arrête. yow mii yaay arrêté nag. non parce que amul sax nit ku ñuul da koy may tuuti mu bëgg a jël la. non kon booy. yow yow mun naa la digal. tas mun naa la digal. tas tas tas yow booy dil ngay gën a mën a am pour la fayda. man dama la xam. tas tas tas tas. sa waay rus naa yore. non xam nga yow yow loolu la laa lay xamal yow kii dina la jëyee jëyee ba nga ruuf gaynde waaye nag bu la jëyee ba nga ruuf gaynde di nga xam ne. lii gaynde la am ndam moo gën ñaanal ñu ñu am ndam. yéen da ngeen dul bëri. yow bu dee am bu dee mën ngaa ñaan am nga ñaan koy joxe ñaanal ñu ñu am ndam. man ñaan bi bu ma amee ñaan koy jox mooy pour ngeen saxasi. dil yéen dil yéen ngeen teg ngeen bàyyi. yow war nga yërëm sa papa ak sa yaay. sa papa chaque jour nga jooyloo nga def na jooy ngay jooyloo say waajur. li na la jig loolu du la jig de delloo see sa xel ama góor delloo seel sa xel nga xam ne ne bës dina ñëw ñu takk la ba nga dëgër dugal la si biir suuf bés bu jar a bàyyi xelango te bu ñuy ba fu ñuy mujjee dil ngeen teg man nag awma toogaay maa ngi dem jàkk te parce que man foogoon naa ni ñuy mujjee nag yéen ay dil dil ngeen di teg en tout cas li ci wër ba wër daal ñun am ñu combat am na nañu combat dina bëre Forza moo koy entraîné mooy faut ñu effacer. sinon bëgg ngaa dégg nag mënu la intelligent intelligent ba xam lu nekk si suñu bopp yi. Forza buñ gisee mu di la entraîné kan mooy wér dina am combat mais mbëri mbëri ànd. mbër ak mbëri ànd. comme li ma la wax nii dafay set bi kii mënut a muus a muus a muus man am na ñu bëgg a def. léegi en tout cas lenn. dinaa waxtaan ak Paa bi. Paa bi daal moo moo la ñor. mais le gars là non nañ ko teg nële. loolu laa soxla.